Babacar Touré ñu dikk nekk premier président Abdoulaye Wade nekk deuxième noonu lañ defee woon àndandoo nekk benn buul musul nungu ko xas surnalist musul nungu ko doylil journaliste musul nungu ko xeeb journaliste musul nungu su muy mais nag musul nungu journaliste bindu lul dëgg ndax dafay wax ne journaliste liy dëggam mooy gëm pilimam gëm boppam te ne nit bu gëmee boppam yàlla sunu borom dana ko dimbale ba lépp lu bëgg ci xalimaam dana ko am. diggante ma bi doon si mën a ah digganteem ak sëñ mun maa ko dund ak moom Babacar ko ñuy wax yaa aw ba mooy ndeem ak Baye Cheikh Touré Serigne Bassirou Mbacke mii way juru mun Muntaxa Bassirou moo jël yaa awa ba jox ko Baye Cheikh Touré mu doon soxnaam ñu ànd liggéeyal yàlla sunu borom yaayam ak baay nekk ci ginnaaw sëriñ basiiru ba dem nekk ci ginnaaw sëñ Moussa Bassirou mu dikk nag remplacer ndeyam ak baayam ci kër sëñ Bassirou pale bii mu tabax fii nga xam ni mooy euh, ngapparu fa la ñu koy dëjee